yi nga xam ne rek ñoom la waa conseil constitutionnel validé ñoo fas yéenee dem ci yooyee jongante daañu càmbar itam nag lu jëm ci dossier a rëkkale fi mu toll nii nag bi mu ngi ci camp Macky Sall conseil constitutionnel yër leen yëglekaay bi di réew mi quotidien moom kay jamono ji nag ñëpp conseil constitutionnel la déglu enquête yëglekaay dellu suwaat ci premier tour élection bi ñu jàpp ñaari fan ci weeru juin bi ñu jëm fas yéene caa ubbi liste candidat yi président Macky ñuy sàkku ca moom mu des ci réewum présidentielle yi yéenekaay bi ne conseil constitutionnel ana ban taxawaay la nar a am nag ci dogal googee bàyyeekoo ci way politique yi lu ci mënti doon daal dialogue ba wasin na wasin wu gaaw ci Sud Quotidien jëm ci élection présidentielle yi nga xam ne rek jàpp nañu ko ñaari fan ci weeru juin fas yéene koo doxal ak fukki candidat juróom-ñeent yi nga xam ne rek ñoom la juróom-ñaari sages tànnoon ngir ñu daal di ci jongante njiitu réew mi càmbaraat lu jëm convoqué ca dialogue national bi ñu doon amale ca jam ñaajo nag yéenekaay bi ne fileeg booba nag ñu ngi xaar ana lan mooy dogal yi nga xam ne rek moom la ca waa conseil constitutionnel di jël ñoom juróom-ñaari saa yooyee nag seenub taxawaay ginnaaw la tukkee ca dialogue bi nga xam ne rek jàpp nañ ne weerub juin la ñu war a amal élection présidentielle yi l'observateur xëy na dellu siwaat ci nag addu jëmale ci transition bi nga xam ne rek moom la ñu war amal ci réew Sénégal ginnaaw ñaari fan ci weeru avril libération feelu ko ne moom kay mujj nañoo libéré askanu Sénégal jàpp ñaari fan ci weeru juin ngir mën caa amal élection présidentielle yi loolee nag di dogal bi nga xam ne rek commission yi doon amal waxtaan wi démb ca jam ñaajo nag mujj nañu koo jàpp daal di tànn fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xam ne rek ñoom la waa conseil constitutionnel daal di fas yéene yóbbu ci élection présidentielle yi waaye nag lu jëm ci dossier bi ñii di rëkkale yi nag lu ñuy càmbaraat lay doon dialogue national bi nag proposé na ñaari fan ci weeru juin atum 2024 le soleil yëglekaay dikk ci doxalin bi nga xam ne rek moom la pouvoir bi fas yéene doxalee ginnaaw ñaari fan ci weeru avril ñu bëri ci membre yi nga xam ne rek ñoo bokkoon ci commission yi nag ña ngay sàkk ñu daal di appliquer nag article 36 bu alinéa 2 bi nga xam ne rek mooy mën a may président de la république ngir mu wéy di des ci réewum Sénégal fii léegi ñuy installé ki ko war a ci bopp réewu Sénégal waaye tamit nag maintenir 19 candidats yi nga xam ne rek ñoom la waa conseil constitutionnel tànn ouverture partielle yu processus électoral bi nag te mooy càmbaraat dossier yi nga xam ne rek mooy candidats yi ñu daal di rëkkale bés bi le jour dellu soit ca la tukkee ci waxtaan wi nga xam ne rek moom lañ doon amalee ca jam ñaaju nag jëm ci jàpp date bi nga xam ne rek moom lañ war a amal élection présidentielle yi yéene kaay bi ne nag dafa mel ni commission bi ñoom dañoo bëgg nag kii di Karim Meïssa Wade Ousmane Sonko ak rëkkale yi nag ñu daal di bokk ci élection yi ñuy waajal ñaari fan ci weeru juin le quotidien yëgle kaay lu mu ci mënti doon daal saytuwaat lu jëm ci procès Karim Wade nag doon na bu yees boo xam ne nii nag président Macky Sall war na koo càmbaraat te projet boobee nag daañu ko càmbar tey jii ca conseil des ministres Walf Quotidien ne Macky Sall kay jamono ji nag bëgg naa intégré ci élection yi nag kii di Karim Meïssa Wade waral ba suñuy naataangoo nag di samp laaj ne Karim Wade moom nu mu mën a nekkee ca dowaan nag di manœuvrer lu mu ci mënti doon daal dialogue national bi moom jàpp na ñaari fan ci weeru juin ngir ñu amal ci élection présidentielle yi les éco yëglekaay ne moom kay may nañu ñetti weeru kado yoo xam ne rek président Macky Sall da koy jiite réew mi rek di gundaandaat lu jëm ci projet de loi amnistie bi nga xam ne bëgg nañu koo adopté ci assemblée nationale forum civil nag ma ngay xam ne ni ñu bëgg fi mu toll nii nag mooy jox wala sax ñu yàqate moomeelu askan wi loolee nag bu ñu yooyee mu jàll mooy jox nañu dëgg nag ñi nga xam ne dañuy def ñaawteef di faat bakkanu doomu aadama yi ak a yàqate nag lu jëm ci moomeelu askan wi ne président Macky Sall moom ndax daa bëgg lu mu ci mënti doon daal ab yi nga xam ne rek ñoom ñoo faatu ci ay manifestation di way takk der yi doon sox ay bal réel ci kaw askanu Sénégal fi mu toll nii nag député yi nekkee ci opposition bi ak ci pouvoir bi yépp nag ñu leen di interpeller addu jëmale ci yéenekaay bii di réew mi quotidien ma ngay dellu siwaat nag ci crise bi nga xam ne rek moom la ñuy dund jamono jii ci réew Sénégal ak jafe-jafe nga xam ne jur na ko ci wàllu ko Mamadou Lamine Diallo ma ngay xam ne nag boo moytuwulee nag atum ren ji koor gu metti la ñu fas yéenee amal lu jëm sax ci wàllu koom gi ba tey nag ville morte bi nga xam ne rek ñii di aar suñuy élection amaloon nañ ko niki démb ci talaata ji yéenekaay bi ma ngay xam ne nag ne waa Colobane waa HLM ak waa Tilène nag dañoo ignoré bés bi nag kenn seenu leen ci banque loxo bi addu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak réew mi sport mi addu